gars yi ziar ziaratan mbokk internet yi noonu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daal nuyoo eh, di leen wax ne tey aussi dañ déplacé woon ah, ñëw ba fii ci HLM plus précisément ñoo ngi montagne seen émission waajal combat waajal combat tey ñu ngi ñëw seet si kan Noiro Noiro junior Noiro pensionnaire de euh, de l'école de lutte euh, Père Diaw moom lañ ñëw seet si fas yéene si xamum waxtaana ah, sama gaa yi waxtaan ak moom ci carrière am fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm kan mooy Noiro junior vingt 2022 2023 nan la koy waajalee ak nan nan la ko fas yéene dundee moom ak ay supporters am puisque déjà koñam lañ ko fekk mafia bi ñu ngi nii toog mais Noiro ci boppam moom wa gis nga gars yi ngi noonu ah mafia bi ñu ngi noonu nee nañu amul seral mafia wu Noiro mais Noiro ci boppam tey moom moo ñu intéressé sama gars fas yéene si xëy moom question réponse xool ba xam waa ji mooy kan ak saison ret bi nan la koy waajalee rakk ji maa lay. Euh, Zeyna nee naa la. ci loolu ne. sant yàlla bu baax. yaa sant Serigne Touba wér. sama gars yi ki ngeen jàkkaar loolu moom mooy Noiro Junior avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seetaan. waaw ginnaaw bi ma jël sant yàlla jël ci lënd bi sant sama ñaari waajur di leen ñaanal fi ñu jógee dina leen fi ñu jëm gën a leen fi ñu jógee quoi waaw tamit du nuyu ñëpp waaw di nuyu mbooloo bi teew ñëpp rawatina doomu montagne yi waaw. mafia bi mafia bi. sa mbaar rek mu naan foofu. mafia café ji waaw si dama la ne maa ngi ñëw nga woote wàllu mafia bi da nga leen woo pour ñu jàppalal ci émission mais xam nga affaire bi maag yow la xam nga lan la nit amul ko dul mbokkam parce que bu neexee maag ñoom la bu naqaree baam ñoom la kon lu mu mën di xaw rek kuy dal sama kaw moom boobu ñëwee ñii nga fi fekk waaw boo ñu jaayee dool nag ñu xam ne noonu la fi demee mais ñun moom duñ bàyyi ñun doomu montagne lañ quoi doomu Fissel Mbalan lañ barke Sëriñ Bamba billahi montagne ngay tiitaroo Fissel ngay tiitaroo barke Sëriñ Touba billaay Akaja buñ ne montagne buñ né montagne xel yi dem ci Noiro Junior buñ né montagne xel yi dem ci caatu euh, montagne buñ né montagne xel yi dem ci euh, Boy Niang Boy Zoro fi la dëkk Zoro mi ngi fi defe naa la booy boobu moo këpp yelwaanu bébélees keroog noonu la fa démé kon déjà euh, montagne dafa am dafa am cër ci làmb mais yow yow da nga bokk ci booyoo xam ne man dama la bàyyi xel bu baax làmb ji kula xamul na ma laaj ce premier combat ba jusqu'à présent dama la topp pas à pas xeb mala nak ben instant parce que def nga fi lo xam say morom defuñu ko buñ ñu deug rek def nga fi lo xam say morom defuñu ko puisque ce premier deuxième troisième quatrième combat ay résultats yu exceptionnel mom nga enchaîné mais rakk ji mon première question dama nan lan euh, lan mo la dugal ci lamb sa histoire lamb fa la tambalé wa c'est na lolou tamit na ci mëna ton touri xam nga séeréer bo ne lamb mom de séeréer. xëy amna ci wàll waaw. lam nak dafa nekk lo xamne suñu deret la quoi ah. ci daw suñu deret ñu juddu fekk ko fi tamit xam nga deret do daw suñu mam nak ak suñu kilifa mo daw ci ñun moo tax ñun lam lam mo ñu bëgg quoi mais ñun ñu lam sax wa lam mo ñu bëgg ñun ñu lam parce que lam lim war yépp sax mën naa wax defuñu ko kon lam mo ñu bëgg ñun ñu lam dafa nekk suñu deret quoi dox. te premier combat arène nga bëré kat. wa sama premier combat arène maa ngi ku ñu wax. Euh, Euh, DMX. écurie Bass Seras. DMX numéro 2. waaw waaw dama ko daan. nga daan DMX sa premier combat première victoire. waaw deuxième bi nga am deuxième bi am ki ñuy wax Racine Seck euh, Racine Seck dama ko daan. nga daan Racine da daan DMX joge ci daan Racine. Mm-hmm. muy deux combats deux victoires. waaw waaw Ro Noiro. Noiru nga def 4 combats 4 victoires premier combat nga bëree daan kan nga daan premier combat bi nga ne. DMX yi. DMX numéro 2 nga bëreel daan deuxième bi nga am kan. Racine Seck nga jàpp ko daan troisième bi. président nga jàpp ko daan quatrième bi. Boy Niang Boy Boy Niang Boy Niang bu Malika nga jàpp ko daan cinquième combat bi boo booy sa première défaite. waaw mu nekkoon sa diggante ak. zone technique. zoo technique euh, bu Kër May Fall. Kër May Fall waaw booba nag booba combat la woon boo xam ne yow daanoogoo moom daanoogul xam nga ñaari mbër yu daanoogul boo leen boolee foog am ku dem am ku xaar nest bu ñu waxantee dëgg rek utalu ma la lay nag man li ma gëm laay wax. boobu yaa ngi toll ci 4 combats 4 victoire zoo technique toll ci 4 combats 4 victoire ou 5 ñu boole leen au stade Iba Mar Diop ngeen bëree combat bu metti mais euh, ro Noiro amuloon lu laxasu ci combat boobu. waaw xam nga comme ni nga waxee rek xam nga làmb moom dafa nekk loo xam ne dafa baaxoo coow mbër bu daanoo lu mu wax tamit dañ naan ah waxu mbër la rek. kon sa jour combat yaak zo technique bi ngeen déparé jëm stade oto oto bi la yóbbu stade dafa fiir benn xale. benn xale ba yàq bi ne nii ci kaw tali bi ñu ko ne dem stade gars yi naka mbokk naka mbokk na police dab ñu dañu dugg ci biir stade rek noonu avant ñu dugg ci dugg yow bi police ñëw mu mujjee dugg ak bagage yi xam nga yéen gars yi nekk ci problème yoonu nit mënoo dam nit à l'aise mënul ne ñu dugg ci biir noonu ma ne ko baaba tuusuma tuusoo aussi bi nga duggee ba ci biir géew bi booy utalu ma la lay de man li ma gis laay wax jeu technique bu la daanee war na la mën a daan boo ko daanee war nga ko mën a daan parce que ñaari ndaanaan nañu boole daanoo ko daanoogul mais bi nga duggee ci biir géew bi ba war a bëre dafa am gàllaaj boo laaj danga nga taxaw arbitre war a siffler ba jox lañ ci avertissement nga taxaw ne gars yi jox leen ma sama xaw ma lan gars yi di war gisuñu ko xam nga li ma doon laaj noonu sax mu woon kër gi parce que si ma doon laaj noonu ma ñibbisee lamb ji bo joye bo nopi joi joye na bo joye bo nopi ci la gis kaw table bi mais la mel non lu wara am day am parce sin bamba mais defet nangou nako baraka tamit li yalla def boko nangou da ngay noplu mais boko nangul da ngay son rek du tere mu am xam nga ma tamit defet yakul mbor day taxa don mbor baraka buy neex day neex gaay di ñew muy neex do xam ñi bok do xam ñi bañ mais bu ci ngay xam xam nga ñi bok ak ñi bañ waaw moo tax defet dafa baax ci mbor neexul waaye baax na ci baax na ci mbor te fu toll ñu am ko sax moo gën dëmb ci kaw doo am problème waaw nga ñàkk sa premier combat sa première défaite muy sa diggante ak zoo au stadium Iba mati, waaw ma ñàkk si mais combat boobu mais man sax sama yoon nekku si ñaari ñaari séeréer moom fu ñu mbëkkantee moom yoonu pël nekku si séeréer nga séeréer la dalante ngeen benn séeréer bi daan bi daan ah, kay loolu kay nice. lijjanti leen ko rek yéen a bokk seen waaw. yàgg na ay mbokk ay mbokk lañ sax ñoo bokk ñoo bokk sax Fissel man daanaka parce que Ndiaga Niang la ma dëkk Fissel mais xamante wu ñoon quoi mais xam nga rek lu waroon am la rek ci li ma jàpp man dama nangu dogal. cinquième combat mooy sa première défaite mooy sa déggante ak zone technique bi nga jóge ci zone technique ci nga dal ci 10 000 problème. waaw ah 10 problème comme ni ma waxee rek mën nañu wax défaite lañ ci jëlee quoi waaw. léegi est-ce que boobu affaire bi méttiwul. mbeur enchaîné quatre victoires bëri daan bëri daan bëri daan bëri daan nga jékki-jékki bëri daanu daanu manam manam bo amul mental bu fort da nga jékki-jékki salit amna mbeur yo yoo xam ne daan wax dañ nan bayna naa waaw loolu da fekk jappo bëri rek ñun ay taal Sëñ touba lañ buñu tit tiit parce que ñu am lepp amna am nañ ñaan waa ñaan waajur suñu mbokk ñu ngi ànd ñun suñu dekkana ñu ngi ànd ak ñun kon ñun tiituñu loolu xam nga daan bëri nak ak daan mo and waaw ku dul bëre du daanu mais tamit boo amee defet amaat defet da nga xool sa bopp da lay jom bu dee bu nga doon bër da lay yokk jom nga gën a entraîné. ma de. da laa koy lekk. instant bii nga amaat combat. dëgg ma de. am nga waaw am na beneen boobu ma wax nii bu nekk nok yaa dee bu caaroy 44. nok yaa bu écurie caaroy 44. waaw moom lañ la jox waaw moom lañ jox dem ba photo. waa gis naa ko bu ñu am bu ne photo léegi promoteur rek moo ci des. bi moo des ci finaliser génne avant. kere bi waaw. loo koy waaj. kooku non ñun par nañ bu ñu woote woon tey tey tey dem daan ko ñëwaat. ñu ni pare nga. billaahi bu ñu woote woon tey tey tey tey na ko yàlla lay walaaxal de. bu noonu combat bi léegi léegi nii la ma ñëw daan la dem ñëwaat suma koñ toog. bu ne woon combat bi tey suba la nga dem bëre daan ñëwaat. parce que Serigne Bamba bu doon ko bi tey tey tey tey la bu ñu ma woon léegi léegi léegi caaro ma fa ko woo caaro seen igri. man daanaka ba doyal war ma dem ñëw ñëw toog du moom moom mooy daan. mobilisation bi ñenn ñoo koy seet. no loolu laaj amatul laaj mobilisation bi xam nga am na gis fii léegi nii. waaw moom woo dama ñëw rek gars yi yëg ne Noireaux day day def émission taxaw. ba ma xam ne su ma woote woon day ëpp lañ ko yëg nii xam nga parce que dama doon bañ a déranger bañ leen sonal ñun gars yi ñun mboru montagne ñëpp laa waxal nag ku mën doon muy caat. muy Boy Niang muy Zoro muy Volca dañu war a reyante ndax montagne parce que montagne buñ jógee ñëpp Oh, untuk gede. Eh, eh. dugul ah ah ay mën a def sa boobu seer di rakk ji kon bu bon daal su ma la déggee su ma déggee sax dëggantaan ça veut dire que ne montagne ren da ngeen fas yéene def feu et loolu kenn waxatu ko loolu bis la fanaan gay ne mer la fanaanoo xam nga ji daaw caatu montagne dafa def deux combats deux victoires ren lay ëpp zoro bëree daan waaw léegi ren da ngeen fas yéene tegaat ko ci ren léegi daa neex dëggoo ma ren soobee yàlla defet dafi am kattanu yàlla yow saison bi ñaata combat nga bëgg a saison bi ñaata combat nga bëgg a bëri man xam nga ñaata combat nga bëgg a bëre saison booy attention yéen seen combat xaalis la de seen combat dafa laaj moo nin de booy par nañ bu yàgg booy mën nañ gérer trois combats ci benn saison dañ koy nelawoo ko yeewaale loolu jaaxal loolu jaaxalu leen. ticket yi. ticket yi eh, eh, eh, regroupement bi. kaar yi. préparation booy booy seen combat dafa laaj mu ne de. am nañu ci ginnaaw rek laa wax ni mooy dax ku leen dax a jënd amut. ci si mel ni njana. kooku jën ticket lay def. dañ ciy jàpp. waaw kooku dof la. Hmm. maa loolu. am na ñoo xam ne kon kon montagne la ñuy représenté. Hmm, kenn waxatu ko ñun ay doom montagne lañ. billaahi du ñu tiit du ñu ragal. lu taxaw dañ ciy taxaw. yàgg na. bilaahi ñun war nañ instant bi jamono ji yaa ngi ni gis nga gis alignement yaa ngi aligné ni mel ni ku war a dem entraîné ji instant bi ñaata ñaata séance nga def par jour mais saa des fois def deux séances waaw noo koy defee noo koy defee matinal bi boo xëyee ak boo nga dem matinal bi foo jëm matinal bi hmm. damay mën naa dem géej wala ma dem saal su ma ko sentir rek fu gars yi paree rek maa nag moom foofu ngoon gi ma dem ma gars yi sarre contact loolu ko instant bi ni ay mbeur lañ bëgg doon ni instant bi ni deux séances ngay def par jour jégg na ma lax loolu instant bi bu combat bi gëna jégé da go mané ñun bu combat bi gëna jégé bu combat passé lañ ci yémalé ñun entraînement mo ñu dundal ñun chaque jour dañu melni su ba lañu wara ben mbeur néna ma grand bi suma yéwo entraînement ma damay fébar barke sëriñ salim magas ben jour moko entraînement ma yaakar awma doole sëriñ bamba xam na lu toggé ben jour entraînement da ngay japp ni ñak nga ben fan suma wut dama yaakar ne kuma nga daan loolu dafa dafa bokk ci man dama koo bëgg entraînement man dama koo bëgg sama bu ñu waxante dëgg tamit mosoo sumee ko taxaw ci géew ne waaw moo xam nga supporter daa am li ngeen war woon ñam mhm. ci yow yaakaar mhm. am loo xam boo la ko woon tamit lu xew dañuy xam ne tamit yaa ma gën a xam am loo xam boo la ko wonee rek lu xew dañuy xam ne lii ndogalu yàlla la am na loo xam nag bu xewee yaa ma gën a xam buñ la xoolee dañ naan waa ji wul non man amul doole barke suñu bamba rus naa sumeeku laa wax nii mhm. ñu ne awma doole bu fi may nekkee champion bu may nekkee roi bu may bàyyee bëre bu ma sumeeku ñu ne entraîné wut du am saa ma demee bu sumeeku gaa yi naan maa entraîné wala entraîné ma ma bàyyi bëre parce que suñu bamba kon daal montagne nañu yokk mobilisation bi jàgg na te ñoom chaque jour ñoom montagne chaque jour loolu la ñuy xëy ci hmm. seen borom chaque jour leen taxaw jëm kanam loolu la ñuy xool ñoom la ñuy def chaque jour waaw eh, rakk ji rakk ji caatu montagne daaw deux combats am na grand combat pour te dire benn defet la mës a am ci carrière am bébé guy gi moo ko mës a daan bébé guy gi mi ko daan mësul daanu mhm. yaa ngi may dégg yow dèjà gis nga nee naa la sa première defet ki la daan mësul daana muy muy euh, zo technique mhm. ce qui veut dire ne ki la daan bu la daanee war na la mën a daan boo ko daanee war ko mën a daan maanaam du yaafus moo la daan ba léegi daanoogul ah am na benn defet nag mhm. par avertissement mais ba léegi daanoogul saison bi ñu jëm ngeen war a ñëw taxawee beneen beneen position puisque grand combat beneen level la yaatu montagne grand combat lay bëri nee naa la nag fi mu dugg baaxul ne nga ma affaire bi benn jooy la seen affaire da jooyu noonu ay ja bilaay benn bilaay benn jooy la barke benn jooy la déggoo ma ne aboy moom dafa xam ne aboy da ko war a leer ne moom fu mu dugg fu mu dugg baaxut mook caatu montagne xam na ne loolu du combat loolu caat benn jooy la koy jooy incha allahu rabi dañuy dem yàlla ma ñu ndam bu set guy fan benn jooy la koy jooy fan nga ko teg caata ko daqabore caata ko daqabore caata ko daqabore hmm. moo ko doole ah moo ko ëpp moo ko ëpp moo ko gën a pare moo ko ëpp mbooloo moo ko ëpp lépp caatu montagne moo ëpp mbooloo aboy barke suñ ba ngeen aboy bi li muy mobiliser eh. Eh. may mamit mamitu gan lan gan Medina lépp caat moo ko moom après après après. ça va ñoo ko ëpp supporter. aboy ah moom moom yéen may ma tuuti aboy ah moom moom yéen moom moom barñi moom moom moom tëngeej bu ma tax a lim de. waaw foofu la moom rek foofu àll ba la foofu la moom mais fii town bi ñoo ko maîtriser te moom xoolal combat bi dafa diis si moom ndax xam nga lu tax suñu secteur la nekkee quoi. yéen jàpp ngeen ni seen booy boobu booy caatu montagne booy boobu noonu mën na dara ci aboy. Ah du moromam sax grand loolu du combat sa waay dafa juum waru woon jël combat bi. billaay dafa juum waruloon jël combat bi dina xaar de dina xaar ba ànd njabootu xaar ma xaar ma jaaga bi. dina xaar ba ànd ak njabootu xaar ma jaaga. xaar ma jaaga bi. baax na baax na je eh, eh, eh, vais vous dire une chose gis nga yi ngeen def bi da leen gën a mere sa waay taxawal ni nga sa nee na nee na dina xaar ba ànd ak njabootu xaar mbay ma jaaga kon dèjà mi ngi tooñ mi ngi tooñ. Euh, ñooy mbokk mi ngi tooñ abooy ah, dañ koy tooñ duma ko néew doole tooñ la te moom dafa néew doole moom njëkk a joon waaw léegi yow yow yow lijjantil lijjantil Nokia yow lijjantil Nokia Nokia bu caaroy 44 lijjantil kooku ba pare lijjantil dossier boobu ba pare no Nokia kooku jaar jàll la jaar mooy waaw mm, tamit mbaa yow ah li ngay li ngay wax ni dina ko seetaan déggoo ma de Nokia yow laay waxal Nokia day xamu caaroy 44 xama caaroy 45 déggoo ma yow bu bés baa doo coupe doo passe man maay baatare man maay paas maay jël tout maay gañe carte yaay baatare yaay coupe yaay jël tout maay jël tout bu bu Nokia dafa yàgg Nokia dafa yàgg Nokia dafa yàgg amul amul amul connexion fu mu nii yow yow del wax rek non non kii dèjà yow dèjà li ngay wax nii li ngay wax nii dèjà booy bi su la déggee dina la gën a mere dina la jàppal loo xam ne jour combat bi danaan booy bi dinaa ko def lu métti xam nga lan laa bëgg xam nga lan laa xam nga laa bokk donc yaa na mer moom na mer bay bu romeelu ñuul sax door ko ay arrêté. na mer ba put na mer ba put bu romeelu ñuul sax lu ñuul rek xam man waaroo damaa ñuul na mer bu mu gisee micro sax lekk ko bu teree li ma koy def dama koy def ci kàttanu yàlla. jour yi bu arbitre sifflé. billaahi ma daan ko. Euh, mbër euh, saison 2021 2022 ban mbër mooy meilleur lutteur de la saison. saison bi ñu génn. Euh, ma xool ma xool Karbala 4 combats 4 victoires. Euh, euh, euh, Adepas 3 combats, 3 victoires. Morkankan, 3 combats, 3 victoires. Boypur, 3 combats, 3 victoires. Tchatou Montagne, 2 combats, 2 victoires. Fils de balle, 2 combats, 2 victoires. Zarko, 2 combats, 2 victoires. Quand moi, meilleur liste de la saison partie Ndongo Mane, man bu léegi nii classement bi nii li nga wax de mais bàyyi parce que man fa laa waroon mais de la saison. man dëgg naa ñu tuddee ñoom Adama ñoom. non yow yow yow kan nga koy jox yow kan nga koy ne mooy meilleur lutteur de la saison classement bi nag booy seet Thiat Montagne mi ci ko man waaw laa ko jox Thiat man Thiat Montagne bi Thiat Montagne mooy meilleur lutteur laa ko jox ci kattanu yàlla saison passée te bu déwénee kan du ko wax moom laa ko jox. Caatu Montagne moom la saison passée. ah wax waxaat kay moom Mody wax la hmm. Caatu laa ko jox. moom nga ko jox ñoom Zarko waaw ñoom yëpp dañuy xaar. coow jibul saison passée saison 2021 2022 ban combat mooy de la saison combat la. bu dàq saison bi xanaa biñ jabee booy boobu noonu. non ay doomu yoo ma mujj bi nii. teg soog waaw bi ñu ko tegee sax ko daana ko waaw moom ma daxal ci ko bàyyi deman teg soog caatu mooy meilleur combat de la saison moom moom ci man waaw ci yow loolu laa gis man mooy meilleur combat de la saison waaw hmm. mooy jël jël bi ban mbër mooy sa idole man hmm. non fu mu nii moom euh, mën naa wax Modou Lo mën na sama idole Modou Lo la col roi des arènes waaw mooy sa idole xam lu tax hmm. moom dafa gëm boppam dafa ñëw gaa yi naa mën nekk mbër waaw mën nekk mbër gaa yi naa mën nekk roi des arènes mën nekk roi des arènes loolu kese laa roy ci moom. moo tax nga gëm ko. kese. moom mooy sa idole. mais à part loolu nice. làmb ji wërngël këpp ban mbër moo fi dàq bëri. bu ne ma dàq bëri. non wax dëgg ba neexut nag. Mm-hmm. booy wax te yàlla tax ci lama gis. Mm. man dama jàpp ne Eumeu Sène kenn dàq ko bëri ci làmb ji. Eumeu Sène taasi nga. waaw Eumeu Sène moo dàq bëri ci làmb ji. ci li ma gis man. waaw wax dëgg yàlla moom. question suivante bi làmb ji wërngël këpp ban mbër moo la non. Malick ñaa bu Yoff. waaw moo tax bu dee xeex bi jaar ci yoon. waaw Malick Niang la Gris Bordeaux. jox ma kenn. ma Gris Bordeaux. Gris Bordeaux jox ma kenn jox ma jox la kenn. ñu ko ci baax na. jox ma kenn xool la xool wootan rek. yow yaa may jox kenn. jox naa la Malick Niang. Malick Niang moo dàkk xeex ci làmb ji. question suivante bi làmb ji wërngal këpp. ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement. kooku nuñ ko waxati. No, dafa xaw bar bari nag. ci li mu bëgg jox ma kenn jox ma kenn jox ma kenn. boo jëlee Eumeu Sène baax na. Eumeu waaw de de. jox tamit ragal la. neexalul lam mais ku ñeme entraînement la. Lac numéro 2 waaw kan nga koy jox Lac de kan nga koy jox kan moo gën a ñeme entraînement ci lamb ji. leer na la Lac ak Eumeu Sène bu ñu tegoon man duma ma ko gis courant du ma rëmul del man maa ngi ci Eumeu Sène. Eumeu Sène moo gën entraînement ci lamb budul dara sax moom gaynde la ñeme entraînement te moom day bëre mais la dëgg tamit yaa ma gën a xam lamam day yàgg quoi day xaarloo gaay lu moo gën a ñeme entraînement ci lamb ji question suivante bi lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi ëpp fit mbër ci lamb ji nii non Modou Lo Modou Lo l'actuel roi des moo ëpp fit ci lamb maa la wax loolu yaa wax loolu question suivante bi lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq fecc fecc yoy nak bo lol de kan sida doomu xaar mi sita mom nga koy jox <laughs> sa mbok séeréer la de sa mbokk séeréer non dafa graw dafa garaaw sida nga ma de mhm. sida koku man dama ko bok xamul tax mom mhm. Baye Fall la barke Serigne Bamba Baye Fall la sida ku bax ngok xamantou ñi nak me ko bax ngok ngoog mhm. may may nuyu nag benn copain am asan asan bu jamagen dom day sida te mu nekk seeraas jaay yàpp sita moo dàq fecc lamb ji question suivante bi lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a yaru fi gën a yaru waaw kan mbër bi gën a yaru ci làmb ji kan la kan nga koy nii nii nii nii nii gën a naw ci yaram ci yaram yaru waaw nii nii nii nii kan boo na yëfi yaru bëri wuñ de waaw jox ma aha wax nga dëgg nag nga dëgg mbëru yaru bëri wuñ de non yaa ngi may soog a neex nag mbëru yaru bëri wuñ mais mais mais mais ban mbër nga gën a naw ci yaram ci làmb ji ci yar nii nii nii Ah, yaru na lool ama seen ama seen tàcci na lool yaru na lool kooku moom waru woon nag mbër sax ama seen bi xol xol ba rafet xol bee rafet wallaahi moo gën a yaru ci làmb ji mhm. question suivante bi làmb ji wër ngeen këpp ban mbër moo fi gën a réew mbër bi gën a réew ci làmb ji laa bëgg a la gën a réew ci làmb la ah kan la kan la ah booy laajuma la de gën a réew mbër bi gën a réew ci làmb ji kan la waaw kan la ci làmb ji nii nii nii nii ci gaa yi mag ci kaw ñep ñep mbër lamb ji wëngël ke ban mbër mo fi gëna réew parce que ama réewul dafa dof ama mom réewul dafa dof <laughs> kan kan ah, ama balti waaw dafa dof boy kan mo fi gëna réew tontu ma ñu avancer ama balde ama balde maa ko wax ama balde mo gëna réew ci lamb mo gëna réew ci lamb ji parce que ban réew nga ko gisee gitu. man lu def lima gis mu def fan yi man euh manam go ne idole la manam royu kay nga am lo xam waro ko def comme yan comme ñi muy def ni jaay boy doole ay saga ay serigne ay mara yoy du affaire lamb Ama Baldé dafa war a xam ne ay cent nit moo topp ci ginnaawam bëgg ko kon nay def yëfu mag loolu noonu man mii sax du ko def barke Serigne Saliou Mbacké man mii du ko def mën naa far bépp far mais na loo xam ne du ko def mais Ama dafa xam ne moom royukaay la am na yoo xam bu ko defee kon ñi ci ginnaawam lu ñu def rek moo ko leen ci buux Ama Baldé dafa war a nekkaat nit bu mu gee nekk champion foofu mu xoolaat boobu mu baax na bàyyi affaire dof yi ñu gën ñu gën a ñu ñuul gën ñu ñaaw gi ñu dof mais dañ ko xalaat xel mu sell la ñu duna ñun waaw jàmm ci yow Nooru émission waajal combat c'est le premier épisode dama déplacé wu tey ñëw gaa yaa ngi toog happiness ci koñ bi lañ ko defee loolu sax moo jaadu parce que tey laa la njëkk a seet si mais la prochaine fois su ma ñëwee salle ñu tegaat ko ci beneen yoon ñu demaat feneen pourquoi pas bu combat bi la ñamal nii rek waaw gis nga ñam xam nga la retour de Noiro nañ ko xaar yàgg na lan ngay lan ngay tàggatu ma de waaw maay waa bax nak nga xamal ne nañu waajal lu baax a baax a baax waaw am na bés di waaj ñëw boobu suñu bés la sama bésu bopp la man boobu maa ko engagé maa ko jël sama bopp lépp lu mu laaj dama koy def waaw bu dee bëre dinaa ko def bu dee xeex dinaa ko def bu dee ndam dinaa ko am lu mu laaj dinaa ko def entraînement kenn waxatu ko waaw montagne nag aw ma seen fay booy yëpp gis nga booy toog nii yëpp su ma limee damay juub ñoom xam nañ xam naa jigéen ñi meer ñi ñëpp Noaka ngi fi fi ay baaka la fi nek barke seigne bamba boy yeb ya ma gëna xam ci lañ tok yaatal bol nek ben ñu bok añ bok kaasu kawe bok lek ñom samba job ñi ñom ñana mi tamit bobu bay na ko yalla dal ñana ko du mom ñom ba job patro boy xam nga ñom lay ñom matar ñom lay pol xam nga ñom bilal yoy yeb patro boy la gon boy ñom xam nañ ma leen lim parce que ma sha Allah dañu bari mais ñom xam nañ ma xam waa montagne nag ama seen fay rawat na nag day balagay mi xam tamit wax defee la day son ci man day mel ni su may bëri day mel ni maa ko ñoo bokk ndek baay kon Dakar ñu boole mu ma trop nag di son ci man añi sawaay mooy loolu mën naa laa wax ne loo xam ne mosuma ko woon wax nit ñaari ko maam am defet yëpp togul añi fekk ko fi fekk ko fi maanaam dalaa ji non kenn waxatu ko mais loolu waroon jaar jàll la mhm. loolu bëgg ma toog sax di ci wax parce que dañ naan waxu mbër la day balagay kenn du moom nuyu nag tamit sama papa Amadou borom kër gi taa fatou xam nga ñoom yaay Sambu ñoom sankor, xam nga ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu tamit tamit euh, Kopé Baye Mbaye yaayam tamit wax dëgg day yaayam day son ci man war ma ne fi sànq sax yaay Baye Mbaye wax dëgg yàlla mère ma bëgg la day son ci man bu baax a baax sax barke si Bamba mën naa jàpp ne mu fii montagne daa mel ni fi laa dëkk fi laa judd fi laa daa mel ni fi laa defee lépp pourtant mais mën na waa sama xale yëpp fii ko def ma dañ maa bokk dama comme doomu montagne bu damay gét xool yaayu caat dama ñaanal raku caat dama ñaanal damay am ndam dugg seen kër nuyu leen maag caat xëy nag ñu xamoon mën nañ jàpp ne maag moom daa am lu xew parce mënul ñaari samp yow bu ne koñ foofu ñu am wax mais loolu waxu dof la gars yi dañu xamul maag caat amuñ benn problème caat li ma ko yéene la la ma yéene para que se